kaw université Soxna Aida mu tàmbali nii ci acham yi jàmbaaru sëñ Béthio ji jàmbaaru sëñ Béthio gaa ngi ni dëggi dëggi jëmmam ji mi ngi wàccee Mali de barke sëriñ Béthio xool ko ci biir nag yi rek universel Cheikh Faye ngi nii waaw